Euh, du genre naka noonu nag dafa am nag ab éleveur bu yoroon nag ay xar bu laadu moom moomee di bileb éleveur nag xar boobu noonu mu yaroon ci li mu dépassé ak njëgam rek ëpp na lu nga xam ne moo tolloog 30 millions de francs CFA suñu ay koppar fii ci Sénégal naka noonu nag si la jëlee bi lépp xar nag daal di koy yóbbu ci bi lépp foire euh, di koy exposé waaye nag la vente yi di am laata dara di xew bi lépp xar nag daal di ñàkk bakkanam li ni mel nag métti na ci bi lépp éleveur waaye nag xaw na sax yàq bi nga xam ni moo di foire bélier en question ndaxte tiis la nakar la parce que yor sa xar lu tolloog 30 millions mu xëy rek def la ab foire euh, li li mel nag lañ leen jëlale woon noonu nag foofee ca Mbàkke li nag la tubaab naan les risques du métier waaye nag tey nag il la raison voilà nag les risque du métier yër sa xar exposé ko dem nag ba des lu dul mettre en vente rek euh, ndogal bi daal di koy dal di ñaanal nag éleveur boobu noonu nag courage et continuation euh, yeneen di ñëw rek mooy dàq incha allah mbokki internet yi bu ñu jógee foofu noonu dañuy jël ñëw nag ci wàllu li nga xam ne moo di beeg Pape Alé Niang di nga xam ne rek ab journaliste la woon ginnaaw nag ab problème bu mu amoon ak nguur gi euh, ba mu waxee rek Dakar jamono ji bokk na ci région le plus cher de l'Afrique de l'Ouest maanaam dundu Dakar ci Afrique yëpp moo gën a tar dundu feneen ndaxte maanaam njëgi cher na loyer cher lépp cher na ba tax na nag état daal di koy jàpp daal di koy tëj ràpp ci kaso gi di xamal rek moom mee di Pape Alé Niang li mu wax ay information loo ni waru koo génne ba wàcc daat koy defeeree euh, naka noonu ba tey nag taxul Pape Alé Niang génn benn yoon dem nañ sax ba ci ku ci mel ni ay Bougane Gueye ku ci mel ni sax euh, ay euh, cadre fi ci réew Sénégal sekk bi lépp langue politique avertir nañ rek nguur gi ngir rek mu bàyyi ki nga xam ne moo di Pape Alé Niang mu njibbi këram ñoom nekk ñu daal di bañ taxaw fu ñu taxaw rek ne dañ ko libéré ba tax na nag ci biir semaine bi ñu génn ki nga xam ne moo di soxna si Pape Alé Niang dafa demoon rek daal di seet ki nga xam ne moo di jëkkëram waaye nag ba mu demee seet ko dafa gis ni rek bi lépp jëkkëram anam yu ko fekkee doy na waar maanaam feebaroon na sax ba daal di sonn naka noonu nag la daal di génn ci média yi daal di xamal ni rek ki leen di jëkkëram fa mu toll temee nañ ko fa génn daal di koy faj ndaxte nam ko fekkee wérul waaye nag kenn daal di ko dégg waaye nag niki tey euh, niki démb ci altigi altine gi dañoo daal di am jot information bi waneel rek que Pape Alé dafa daal di daanu ci kaso boobu mu nekk ba daal ñu koy jël daal di koy évacuer foofee ci l'hôpital ñu koy ñaanal nag mu daal di génn jàmm ci li mu nekk waaye nag bu ñu jógee foofu dañuy daal di jógee Dakar daal di dem ba xam ne foofee ca Thiès daal di dugg ci li nga xam ne moo du langue pour football ginnaaw nag ab euh, ancien joueur foofee ca Thiès lañu daal di génn rek dafa sàcc lu toll ak un million ci ab joueur information bi nag aso lañ ko jot fii nii ci réseau yi publié par des sites waaye nag topp ñu côté aussi tamit indi ñu ay initial yu wane ni kan ak kan mooy bi lépp joueur waaye rumeur bi nag ñu ngi koy rumandaat ci Thiès doon na jugé si kër yu bëri waaye nag bi lépp rumeur nag mi ngi commencé di jéggi Thiès ñu koy daal di am nànk-nànk kan la moo def loolu ban joueur moo jël xaalisu beneen moroomu joueur am ban ancien joueur moo jël xaalisu joueur pro actuellement li ni mel nag am na guñ ci lu ñu leer waaye dinañ leen ko toppal lu ci fës rek wala lu ci rot rek dinañ leen ko dëgmal fii ci seen seen euh, chaîne YouTube seen Actu topp leen ñu rek woy leen di abonné te a campagne bu ñu fa jógee nag dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne moo di coowal adjudant chef Didier Badji ginnaaw nag moom uh, bi lépp uh, adjudant dafa dañ ko porté woon disparu kenn gisu ko ba tax na jamono yële nag ñu daal di for ab new foofee ca large côte bu saint waaye nag daal koy teg ki nga xam ne moo di adjudant bi di Didier Badji waaye nag bañ ko toppee nag daal def ab autopsie bi lépp nag uh, koor bañu foroon foofee nag ci Saint-Louis bu adjudant nag fi ñu toll tembe enquête bi de daal di waat à zéro ñu daal di jéem a xool rek ki nga xam ne moo di Didier Badji fu mu nekk nii dañ koy daal wër ndax xamuñu mu ngi dund xamuñu nag fan la nekk en tout cas il est porté disparu de toute façon lu ci am rek dinañ leen ko toppal indi leen information bi fii seen chaîne YouTube SENactu TV waaye nag buñ fa jógee dañuy daal ñëw indi li nga xam ne moo di mel ni ci euh, li nga xam ne moo ay doomam ñoo ci nekkoon la ñu daal di infiltré mais nag bañ ko infiltré nag jot nañ leen a jàpp ba arrêté leen waaye procureur nag ta benn daan dul deux mois euh, bi lépp procès dafa la xas jaan am nañu ay main yoo xamante ni dañoo lié wala tamit am na un main de fer kenn xamul waaye nag lépp luñ ci jot rek dinañ leen ko indil fii seen chaîne YouTube seen Actu TV waaye nag euh, luy xewul ci réew Sénégal daal doy na waar jéggi na dayoo ginnaaw nag ki nga xam ni moo di ab xale moo violé ki nga xam ni ak ex camarade de classe woon gannaaw nag bam ko tegee paaka rek daal di koy violé ba pare daal di koy filme li ni mel nag métti na ñëpp jéggi na yoon doy na waar li xew Sénégal nag kenn xàmmeetu ko il nag ñu daal di xool nan la ñuy naka la ñuy yoree suñu ay doom waaye il tamit nag ñu xam nan la ñuy sàmmee suñu ay rakk ak suñu ay sœur il est nag ñu dal di inculquer ay valeurs suñu ay doom ndax réew mi nag lu ñu fi gis nag jéggi na dayoo waxu sëñ Moustapha Sy bi rek lay daal ñëw sang leen réew mi ci ay jukko balaa ñu koy sang si ay deret waaye nag fan yi daal réew bu Sénégal jax na mel na lu ñu si poobar ak kaane nit ñi xëy ci dëgg chaque jour rek ngay am information à sauf chaque jour rek ngay dégg loo xamante ni rek c'était contrainte à notre li nga xam ne moo di culture waaye nag mbokki internetu SENactu TV xibaar yi nag dañ koy daal di ndar keppek ci mœurs légers yi di am Sénégal comme nuñ koy waxee rek dëkk bi nag semaine bi mouvementé na amoon foofee ca King Fat Palace nga xam ne ki nga xam ne moo di artiste bi di golden boy de la musique sénégalaise di Wally Seck doon na fa demoon na fa teewee bi lépp soirée ku ci mel ni présentateur bu mag bi di DJ Boubs euh, teewee na li nga xam ne moo di bi lépp soirée bu amoon foofee ca King Fat Palace waaye nag ay cadre fii ci réew Sénégal teewee nañu bi lépp li nga xam ne moo di ab euh, euh, soirée boobu amoon foofee ca King Fat Palace li ni mel nag la fa am kenn rafetlu ko nag euh, nekk na loo xamante ne c'est contrainte à notre culture nekk na loo xamante ne fii ci Sénégal nag euh, dañ ko considéré comme li nga xam ne daal c'est à bannir gannaaw nag ba ñu defee ab soirée publique ay dirigeants yu am personnalité nekk fa ay nit yoo xamante ne presque nii solo ñu lu dul slip ak soutien di ñuy woowee carnaval ñu koy gis ci réew tubaab bi lañ fi daal di indi nag fii ci réew Sénégal ba sax na nag tey nag euh, waa ONG Jamra ku ci mel ni la ndax li ni mel jéggi na dayoo te kenn rek rafetlu wu ko li ni mel nag bañ ko gisee nag ça a choqué les gens ça a choqué les internautes ba tax na partout dans les réseaux nit ñaa ngi réagir di wax rek li ni mel ki nga xam ne nag moo di waal nañ ko cee takkal mais nag dañoo seetaan ab vidéo ñëpp d'ailleurs ñoo ko gisandoo mooy wax ne rek ki nga xam ne moo di DJ Bobs ginnaaw bu mu gisee carnaval ñooñu maanaam ñooñu nga xam ne soloon nañ lu nga xam ne dafa jéggi dayoo di ab slip-up si publiquement ñëw di fecc naan ko ci xibaar rek dañu ma amee ci média yi ba tax nag bañ toppee information yoo xam ne moom mee di Wally da nga xam ne moom moo indi bi lépp soirée rek moo daal di def li ni mel waaye moom fekkewul moom mee di Boups nag les gens a la main liée bokki internet yi nag li leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi di daje ëllëg waaye laataa loolu way leen di abonné te bu leen fàtte di appuyer ji cloche de notification pour ni mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen rubrique fii YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information à la prochaine